asalaamaaleykum man la baaba di marketing pro souvent gars yi dañu may bind message di ma laaj pour ma seetal leen mais du ma temps pour seet mais tey dama leen di woon rek les cinq meilleures offres de auto win yi pour ku bëgg a jënd auto. pour offre bu njëkk bi ñi ngi am benn grandeur full option premium année bi nekk 2016 am na smart key navigation consommation bi tamit bu faible la parce que 240 la te oto bi mos a accidenté ñi ngi koy jaayee 5 millions 810 mille prix bi ak transport bi ba Sénégal. pour deuxième option nous avons Santa Fe full option 2016 Le prix est de 7 millions 375 mille prix auto bi transport au Sénégal auto bi accidenté c'est full option la am option pourquoi pour offre numéro 3 nous avons ngi am auto, 2023 Palisade, la full option le kilométrage bi c'est très très faible prix l'autobus bi ak transport ba Sénégal mu millions pour offre numéro 4 bi bi bëgg Kia Sportage moteur bi 1.7 ñu la koy 6 Sénégal auto accidenté et c' très clean consommation bu basse la option offre bi Kia Sportage la mais 2018 la ñu la 7 millions 950 Sénégal la voiture est très propre Bien, Masha'Allah. Bien, allah Wahdara. kenn si wax dara.